gannaaw ba waa FRAPP fësale ab note démb di si xamle ni gisuñu Guy Marius Sagna mënuñu ko it jot te ñibbi na këram ci euh, jàmm ak salaam ci ay booru 17 h la ñu mujjee jot ab xibaar ni activiste boobee di Guy Marius Sagna ay élément groupe d'intervention rapide de la DIC ñoo ko doggaale mu doon jëndi reer daal di koy rek teggaat loxo ñu bàyyi ko bu yàggul dara Assane Diouf daal di nañu koy teggaat loxo moom it ni ki démb si altine ji ci ngoon gi division des investigations moo dem ba këram daal koy jàpp yóbbuwaat ndungu si na avocat wa maître Khoureyssi Ba ba mu fësalee xibaar bi nag ba noppi si ab communiqué euh, xamlewul lu waral ñu jàppaat client wam bi waaye nag jàpp nañu ne activiste bi dafa sokkale benn jokkoo téléphone euh, ci diggante Clédor Sène ak benn inconnu bëggoon a sant benn mbir rek ni ki tey ci at talaata ji euh, Clédor Sène nag mu wax si seen waxtaan woowee ne mën nañoo tey kii di Ousmane Sonko daal dina demandé interlocuteur am ngir mu jublu ci mbir mi ni ki tey 23 bi Assane Diouf ak ñoo ngi tënku ci ab mouvement bu ñu dippee peuple police di ko doon wër moom it démb gannaaw ba ñu jàppee Assane Diouf ak Guy Marius Sagna ba noppi avocat bi di Maître Khoureyssi Ba tamit xamle woon ni Clédor Sène dina bokk ci liste ñañu tee loolee nag daal dinay am ndaxte division des investigations criminelles daal dinay xëy tey fajarteel dem jëli kii di Clédor Sène ca këram Derklé di arrestation ba nga xamante ne ni benn fichier audio moo ko waral bi ñu jàpp yóbbu ndungu siin ndax ab enregistrement audio bu ñu jagleloon kii di clé d'or ñoom nag dañu leen soupçonné ni dañu la jàppante gu tar loola ni ki takk der dal di jot bu ñu sukkandikoo ci journal bii di observateur lu ñu wax ci audio boobee moo di da ngeen fàtte ni xeex bi talaata lay tàmbalee fi mu ne nii jot na ngir ñu jublu ci action bi te ñoo ngi organiser wu ngir bu ñu yéggee rek ci dindi malaanub kiit laayub Sonko arrestation publication wam te ba suba talaata bi rek si des te dañoo liggéey ba sub dibeer bi yëpp dina compliqué ndaxte ñemewuma proposé li neen Assane Diouf tax ma boole kook yenn gaa yu nekk Pikine li ni mel nag nee nañu la ñu xamle ci boobu léew joo bu ñu sukkandikoo ci journal bi di observateur activiste yi di Assane Diouf ak Guy Marius Sagna nag mu waa division des investigations criminelles teg loxo ni ki démb si altine ji dañoo lank rek bañ ne duñu tontu si laaju nee nañ gisuñ lenn lu mën a tax rekk ñu daal di leen di teg loxo ndaxte defuñ dudul défendre seen réew bu dee nag kii di Clédor Sène mu ñu xëy tey si talaata ji jël li fajarteer ca këram Derklé daal dinay xam le ni moom moomee moo nekkoon base mouvement insurrectionnel bu ñu doon waajal rek jëmalee ci régime Macky Sall bi laata muy xamle sax ni ñoom ñooñee dañu doon lal ab pexe jëmale ci li nga xamante ne ni moo di pouvoiru njiitu réew mi Macky Sall